dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi ko quotidien ñu xëy fekk fa ñoo ko bàyyi Diouf mi nga xam ne moom mooy directeur bi ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci àq ak yelleefu tout tànk yi daat nay wax ne woppi coronavirus ji bépp matukaay boo xam ne bu ñu wala jër la rek ci xal yi daat nañu koy jël ba mu mat sëkk ndax lu toll si juróomi ci ay daara daat nañu koy tëj lu toll si juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay xale yoo xam ne ñoo ngi woon ci mbedd mi daat nañ leen fay jëlee kaay gii du l'observateur nee na Covid 19 bi nag ci troisième âge bi la gën a aay ci Sénégal ndax ñi nga xamante ni ñoom la Covid 19 bi faat ñoom ñëpp nag boo dee xool troisième âge la ñenn ñi sax dañoo amee woon li nga xam ne mooy woppi jabet yéen kaay gii de la témoin mu ñu xamal ñu gouverneur bu Diourbel moom nag jamono ji daal cas communautaire yi nga xam ne moo am Touba daat na koy jaaxal daat nay wax sax ne marché Ocass maanaam danañu ko daal di tëj yéen kaay gii di Vox Populi moom mu xëy di wax ne gouverneur bu Diourbel lu mu yéex rek si tëj marché Ocass soo njombe dina fa daal di am ndax lu toll si juróomi cas communautaire yoo xam ne daal di nañ ko fay gis te ba léegi ni marché ba ma ngay wëy waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ñoom nag am nañu ndigalu xalifa bi ngir tëj marché yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba yéen kay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa maître Khoureychi Ba moom nag daat nay xotti arrêté bi nga xam ne ministre Aly Ngouille Ndiaye daat na koy génnee jëm ci takk ay masque moom avocat bi dafa jàpp ne mbirum escroquerie mbirum naxaate mbirum manipulation moo am ci li nga xam ne maanaam mooy masque yi xamante ni moom la sunu autorité yi jéggaani bitim réew andi ci réew mi loole nag ci boppam moo mën a ñàkk li nga xam ne mooy crise bi dañu ko war nag gérer ak sunuy valeur mbir mi ci boppam dafa mel ni dafa am lu ci daal di làqatu yéen kaay gi du l'observateur xëy yóbbu ñu diiwaanu Italie ak ndimbal li nga xamante ni état bu Sénégal jox na ko doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo fa nekk ngir Covid 19 bi journal bi nee na bëri na ay sénégalais yoo xam ne dañoo amoon woppi coronavirus doon ko nëbb waaye bi ndimbal li génnee ñoom ñëpp ñoo daal di génn ci bitt wane seen bopp yéen kaay gi di Les xëy nag dikk ci marché yi nga xamante ni moo jëm ci wàllum ceeb bi ak suukar si ci ndimbal li nga xamante ne état bu Sénégal ma ngi koy jënd journal bi nag dafa daal di njort ne ab scandale daf cee nekk wala nag moo ciy xeeña ndax lu jëm ci ñaari marché yooyu nag ki nga xam ne mooy Idi Thiam bu UNACOIS moom moo ko daal di gagné yéen kaay gi nag jàpp ne dafa am loo xamante ni dese na saa leer la yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa nag ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum àq ak yelleefu doomu adama ñoom nag ànd nañ ci comité pilotage bi général François Ndiaye daal di koy jiite nag su Alioune moom nag àndul benn yoon ci kuréel googe daal ñu dugal ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci au conseil des collectivités territoriales wala ñi nga xam ne ñoo bokk ci conseil économique social environnemental yéeni kaay gi dikk na ci waa Médina ñi nga xamante ni daal bëri na si ñoom ñoo xam ne nanguwu ñoo respecté li nga xam ne mooy couvre-feu bi tax na nag lu toll si juróom-ñett ak juróom ci ay nit ci Médina teg nañu leen loxo tey ji nag ci talaata ji danañu daal di jano ak procureur journal bi di Libération ne wax ji kay mooy Médina bomb dëgg la ndax ba mbir mi commencé ba léegi am na lu toll ci ñaar fukki nit ñoo xam ne amee nañu wopp ji ca Médina am na ñetti ka communautaire journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu en tout cas daal njaw ma ngi wéy di desu xam ne ndax nit ki démb rek am na ñaari nit ñoo xamante ni wopp ji daat na leen di fàtt lu toll ci fukki nit waat nañu wopp ji lu toll si juróomi ka communautaire journal bi di Vox Populi moom mu xëy di ñu xamal naan ñu ci ñetti fan yi rek lu toll si ñett ci ay nit daat nañu ciy faatu yéen kaay gii de la mu ñu xamal naan ñu jamono ji ñëpp nag woppi coronavirus moom la ñu daal di tal waaye nag ay scandale ndekk ma ngi am ci suufa journal bi joxe misaal nag ci contrat bi nga xam ne moo dox diggante Senelec ak société bi di Akilee ak nag njombe yi nga xamante ni dañu ko saa daal di njort yéen kaay gii sunu làmb xëy nag di samp ab laaj ne Bombardier mi nga xamante ni benn at moo tere mu daal di dem retraite ndax ay atam toll na si ñeent fukki at ak ñeent am na ñaari année blanche moom Bombardier te jamono ji nag ndax du anticiper li nga xam ne mooy ab dem retraite am